sëriñ Cheikh nee na bi ma déggee sëriñ Aliou ngay wax ma ni Cheikh El Hadji Malick te xam nga Maodo moo gën a contre karama ndax Maodo dafa daan wax karama ñu àggagul ci yàlla ñoo koy tooñ buñ ci àggee dañu tal leneen lu dul toog rek jël benn doj naawal ko picc wala jël benn montagne soppi ko mu weex ba yàgg bu ñuul ah, wax na dëgg nag waaw sëriñ Cheikh ni sëriñ Aliou ni ma Cheikh El Hadji Malick toog naa ñoom mu ni ko yéen gis nga nit dina toog ak yéen nii yore doomu guru nii ngeen di lekk te fekk ma nga ca barsax am néew ba muy teew nee na ma ni ko Maodo daa ko wax ma ni waaw gis naa su ma ni ah karama nee ma dem ba yàgg ma ni waaw ku gëmul karama kay nan lay waxee luy dellu ci karama nee na ma xalaat xalaat ba yëg ni nekkate dafa am ñu yàlla formé ci côté spirituel mën nañu loolu te du jàll ñu def karama man moo tax parfois dama naan ndax ndax waxu mag ñi ñu ngi koy dégluwaat ndax léegi da dégg gis naa barzak ñee barzak ku ko mën a gis nangam nangam daf leen di jaaxal te suñu diggante ak barsax bi benn la dara doxu ci nitu yàlla yi fu ñu toog ku yàlla teral xam nañu ku yàlla teralul xam nañu maa ngi fàttaliku ko rek journaliste boobu bi mu génnee àdduna Sidi Lamine Niass ba seen werante ci denc baag ba ba jour bi ñu dem ba di ko denc muy jour aljuma jot gis nga fi fi ma toog laa gis maamam la muy Cheikh Abdoulaye Niass di ko tijjil buntu Barzakhul Maktoum muy maamam Cheikh Abdoulaye Niass di ko tijjil buntu barzaqul maktum nii Sidi Lamine juddu di ko nitu Cheikh nitu Cheikh te dégg na fii si Sénégal lu nekk waaye man yàgg naa leen avertir ci mbiram waaw ndax mosoon naa leen ko tudd gàmmu yàgg na dëgg la mi ngi internet bii neex na mos naa leen ko tudd fii gàmmu dëgg la ni leen am na ku fi koo xam ni directeur de presse la. zikr na nombul salatul fatiha bu permettre ñu wan ko soorooru Zawiya Cheikh Tidiane. te boobu mi ngi jar di bàyyi xel lu mag ñi demuñu fenn. ay xam nga loolu boo ko xamul da nga naan nan la a nekkee. fekk boo ko xamee du doon dara ndax formation spirituelle moo tax di dal ci kaw nit. nekk mi ngi ci kurusam guddeeg bëccëg nit doo ko àtte mukk ca la muy génn di wax nangam nangam bare na kuy génn di wax yaa nga ca taw gi ragal yàlla bu dul jeexu te moom côté am nag moo tax ñu ndax ñu bare ndax moom gis nga jeudi yàgg naa leen ko wax mosu ko toog lënd mosu ko daf ko daan wax te foo ko fekk du tëdd te deful juróomi junne salaatul fatiha te bis bu bëgg taal bi moo tax nit dana am ñaari casquette casquette bii ak casquette bële mais casquette bële moo ëpp solo parce que yàlla loolu lay xool waaw te Cheikh Alhaji Oumar daan na wax salaatul fatiha moom ku koy zikr bu doon tooñ nit ñi sax nee na lu ñuy rocc ci moom di di faye di faye mën na dese ba léegi tànk ma ngay zikr gars yi ñëw duñ cer ceerno ah, loolu du mënee nekk mu ne ah, salaatul fatiha dafa bëri yiw de waaw Cheikh El Hadj Omar ni leen salaatul fatiha dafa bëri yiw de moom daal borom jeexal na tàkk léegi desetul dara xanaa fekk dafa arrêté zikr rek zikr bu ñu naan waaye leen tànk mi ngi zikr bu rocc di rocc bis bu nekk rek lu tabaxal ko beneen montagne bi yiw waaye loolu loolu loolu wax leen ko mooy dama leen bëgg pour ne ni leen tariqa tijaaniyya mooy dëgg dëgg bu amul weer boo gisee nu ñu leen ko tuddal bu bëgg rek leen jaaxal ndax fii fii ñaata nit di nekk nit ñi ñëw nettali ma ci loo xam ne man mii sax gis mais dama bëgg dalal seen xol ndax man ñi dañuy wax ni baax na boo nekkee ci dara bu dara xewee barsax ñu ne la nangam xew na waaw nga xam nag lu noonu tëddee lu am solo ndax parce que day yokk pas-pas pour ñu xam ni tariqa tijaan yëpp benn naxe amu ci lii ñu wax fii mooy réalité bu dëpp te boo ko toppee nii noonu lay doxee ba ëllëg boo ko toppee nii noonu lay doxee ba ëllëg te boobu mooy réalité bi am solo su ko defee loolu ñu bàyyi ci ñi bàyyi ci xel ñi wax tariqa yëpp amul ëllëg c'est parce que ñoom dañu jàppe tariqa tijaniya xëy na tariqa lii c'est la lumière de l'âme lii leeru rox salatul fatiha leeru rox la jawharatul kamal leeru leeru rox la waaw laa ilaha illallah leeru rox la istighfar leeru rox la moo tax ku sóobu ci tariqa bi bàkkaar dootoo fa dese te mag ñi fa ñu nekk ña fa te mën te mën nañ li ñuy def xam nga génn àdduna samaam nii la buntu barzaqul maktuum a ngi nii tijji nga dugg loolu dara dàq ko parce que nag cheikh nag euh, barzaqul maktuum la moom moo tax mu nekk àndal yàgg naa ko di ndax ñu bari boo génnee àdduna dañ lay xaarlu xaarlu yow xam nga ñaata année ngay xaar xam nga ko léeg-léeg ñu upp la euh, dañ naan euh, tijjil la benn buntu bu jëm àjjana upp la tuuti nga xaw féex tuuti ñu dellu waaye cheikh amul loolu nee sama tariqa jël ko deux heures de temps doo ko passé si si te jëluñu sa rox ak sa boole dugal sama biir bar sax a jar a àndal moo jar a ci koo xam ne bëgg na tex kon ñi ñaan rek yàlla ñu yàlla yàgg def mu nekk taalibeem xàqal may nu nuy moom dundu laaj ak dundu bàyyi may nuy dund ak moom dundu abadan bi Yo, <laughs> yo,